ay as yëglekaay ak marka yëglekaay wiiw sport mondo di portivo la Corogne ñeenti yëglekaay yi ñu war a coppati ginnaaw bu ngeen demee fële nga xam ne ah, moo nekk ah, fële ca ndakaaru ah, géejawaay waali bambendeeri moom mi nga xam ni mooy jaayu baax yi ak Parcelles Assainies weetu kër muuduloo borom ñeppe ak ak ba xal yu tegu ci yoon yi bu ko defee ngeen dékki ba suur jaar fa jënd seeni i fowukaay ay blanchoir yi ay berceau la. berceau yi waaw berceau yaa ngi si kaw yi ay pot de lingette la pot de lingette ba bébé. Ah, voilà yii nag donc promotion bi na. Uh-huh. pour pour euh, tabaski bi quoi incha allah rabi. yii xam naa ne moom yaa ngi gis appel yi. ku ci yor waaw appel téléphone téléphone day sonné rek. waaw léegi wóor borom géejawaay. waaw ma ne. Uh-huh. maanaam ki ne ne kilo man bay da nga ko nangu. yaa fi ne de. king bi moom xam naa ne gars yi nangu nañu ko. king jógee moom yow la <laughs> Cheikh Ahmadou Bamba ngoogo borom ñebe ji nga xam ne daanaka mi ngi tas Ndakaaru am fa place bii nag nekk parcelle unité 10 wetu kër ñoom Modulo moom mi nga xam ne daanaka moom mooy jaaykat ñebe bu baax bi da koy togg bam ñor ñobbe ñebe bàyyi ngañ la yor boo xam ni bu mucc ayub la boole koog nee ne baxal yoo xam ni gars yi lépp loo ci soxla boo ci defee commande mu andil la ko bu neexee nga dem ci moom bu la neexee nga woo ko am na ñetti place loolee gën naa am solo bu baax a baax ginnaaw bu ngeen demee ci bërëb yooyee fekk marka yëglekaay li mu indi ci xëtam bu njëkk tiitër bu rëy bi muy jaay ci diggante Italie ak équipe bi la nga xam ni moo nekk Espagnol yi Espagnol yi ñoo dóor démb seen dëkkandoo yi loolee mbégte la doon ci ñoom ndax seen yëglekaay yëpp kenn kum ci mën di doon indi ko xët wu njëkk marka loolu la def waaye laas yëglekaay moom it def na ko indi numéro 20 bi nga xam ni mooy bu équipe bii di Espagne ba pare tamit fàttewul li nga xam ni mooy Mbappé ndax ñoom duñ ko fàtte benn yoon ak Bellingham mi nga xam ni takk na numéro 5 ba ca kaw yëglekaay bi waaye bu nu ruppee li nga xam ni ah, mooy as ah, dugg ci li nga xam ni mooy ah, Mundo Deportivo moom li mu andi daanaka ci suuf yëglekaay bi mooy Barcelone gi nga xam ni sensé na ay moyens andi na Bellingham numéro 5 wiiw sport nag moom li mu gën a wiiw te mu am solo bu baax a baax andi na entrée bi nga xam ni yaakaar na ni gratuite lay doon te loolee sax officiel na mooy stade ba gaynde yi footballé ñooñee di waa bene yi dañu bëgg am ndam ci diggante seen diggante ak Sénégal ndax ndam loolee jàpp yeneen supporters yi cent pour cent ba foofee mel ni tulleeg man li stade bi fees danañ fa mën a tëj ci gaynde yi waaye nag loole ah, ñi ngi wax ni ah, jàpp nañ ni loole daanaka ah, ndar ndakaaru lay doon ndax soree ñan lool ndax ñaari équipe yi ah, bu ñu xoolee tolluwun sax niveau ah, tey sa gone yi ah, tàmm na rythme ay supporters ndax stade yi nga xam ne ñoo gën a mag ci àdduna wala ngal kàpp danañ fa dem gars yi ñu yëngal ngéwal ak Espagne ci suufu yëglikaay bi am nañ fa équipe nationale Sénégal basket bi ca Maris Ndiaye démb ci tàkkusaan gi goo xam ne ñu ànd ak Aya Traoré nga xam ne ñoo fa nekkoon beneen bi mooy Fodou Bala Touré mi ngi ci yëglikaay bi moom mi nga xam ne daanaka mën a am benn bon de sortie fële nga xam ne moo nekk Italie waaye CFC ak Génération Foot bi nga xam ne war naa daje géejawaay loolu sog la boo xam ne gaa yëpp ñi ngi koy bàyyi xel ndax sog la ci biir sog li sog yi euh, bokk sog bi nga xam ni mu ëpp doole ci championnat Sénégal gaa yi na ko ñëpp bàyyi xel ata waajal ko fekk boobee ngeen ruuru abonné seen i dugg ci biir YouTube beeg TikTok bi jaxase ko def seeni i kër ak li nga xam ne mooy seeni i message